ثواب الله في كل خزوة مع الحب والرضوان والقرب والقربات يدوم الأعمال حقا وكلهم يبذر المعز إلى الأرباب عليهم من المولى إله ورحمة كما سأزورني بأسيافهم تنبأ ليجعل الأسباب نبس الذي قلبته فلتبدلا وجنبني الحجاب والكبر والكسبان أن لي كرامات وكل بلا انتهاء بما فاق سني ولتسفل لي الصعبان مددت يدي يا مالكي راجيا لكم خريبا منيبا عن سلوى سفر راجيا لكن غريبا منيبا عنزا واكسف الرهبان نفيت الأذى عني فجل لي بأوبتي سريعا بلا كد ولي وسيل الأخبار لك سوري سيتني خادما النبي عليه صلاة منك تؤمن nationale, c'est comme une grande, une grosse ONG. Voilà, qui est autonome. Mhm. Et Malte déjà, depuis longtemps, depuis après les guerres anciennes, euh, avait, pardon, oui, avait déjà, avait déjà euh, conquis et gagné son autonomie. Euh, voilà. Et sur le plan international, en Afrique, mhm. euh, Malte, Malte intervenait par ce don-là. C'est vrai on appelle le don de l'homme. اللهم سهلي مراقبي دواما بجاه المصطفى واكفني كربان لوت صلاة ما سلام بآله وأصحابه واجعل بي مزيد Sur 25 mètres de haut. Donc des marches d'escalier en béton. Euh, donc de là jusqu'à jusqu la plateforme. Voilà. Et ça faisait presque euh, 40 à de, dalles. Voilà. Donc, nous, nous, nous euh, tout petits, on venait, s'asseyait là et on contemplait la lagune. Et on regardait l'autre côté. Voilà. quand les gens venaient, ceux qui venaient par pirogue, qui venaient par petit bateau, accostaient là pour venir à, à l'ordre de Malte ou bien pour aller à l'église, à l'église catholique. Voilà. comme ça c'était. très beau ici. Oui, monsieur le colonel, pour ce grand appel que, nous fait, que vous nous faites de l'histoire et de la colération que vous avez fait entre les maisons là où on, on les grandes endémies la présence du chèque et son lieu d'ablution. Parce que nous, mourites, nous considérons que là où est le chèque, c'est la bénédiction. Ça peut soigner tout. Même ce taux-là, nous le puisons pour partir avec au Sénégal. Et quand on a un souci, on peut le toucher pour que le bon Dieu exauce tous nos souhaits. Et nous avons que la visite du chèque, la venue, son exil ici sur la terre gabonaise, a rendu la terre de Mayomba sainte. Nous, on considère Mayomba comme une terre sainte. Et nous considérons cet exil également comme l'exhaustion de tous les souhaits du chèque à travers la volonté divine. Parce que le chèque n'est pas venu ici, comme monsieur Mouchemba l'a réitéré dans la salle, pour lui, mais il était venu ici pour le salut de la Ouma, de toute la Ouma et de toutes les créatures. Parce qu'il y a dans ses écrits où il dit le bon Dieu fasse que mes écrits soient bénéfiques à toutes les créatures. Je dis même pas à tous les êtres humains, mais à toutes les créatures. Donc nous vous remercions du fond du cœur pour cette acceptation et également pour le respect que vous donnez au Vénéré Chèque. Soyez-en remerciés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Madame, Madame Boto, c'est la représentante de, de l'association des Mais nous voulons, qu'elle prenne la parole. Khadi Soumaré. Come on, you can speak some, say something. Yeah, just something. Euh, bonjour. Euh, bonjour tout le monde. Euh, déjà, je suis honorée euh, de votre présence. Nous, nous le sommes tous euh, d'ailleurs. Euh, du coup, humble personne que je suis, je suis aussi une disciple de Serine Touba. Et avant, j'étais ici jusqu'à ce que je parte en France et étudier. Et là, actuellement, je suis revenue pour, euh, enfin, pour l'occasion de la caravane. Et c'est comme Sornabator l'a dit, c'est euh, un lieu de pèlerinage pour nous. C'est un lieu très sain, très pur pour nous. Et euh, c'est pourquoi nous souhaitons vulgariser euh, ces informations, ce lieu, pour que tout le monde peut en bénéficier. Parce qu'il n'y a que des bienfaits ici. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Euh, le, terrain, ah oui. le ah, ah. vous l'avez. devant vous. Uh toute, cette zone à ma, droite. Vous voyez les arbres qui sont là. Mm. vous montez mm. jusqu'à la route. Mm. Donc les, des arbres jusqu'à la route. Ensuite, derrière le bâtiment euh, qui est, au bord de la route là. Euh, vers Les bambouchines, c'est cette plante là venus de Chine, certainement. Voilà. Et tout ça, toute cette façade de la rivière. Et en même temps, euh, le mausolée, vous trouverez euh, certainement juste de le placer là où il sera visible, euh, visible euh, de la lagune, visible euh, de cette partie de la route, donc à gauche et à droite. Est-ce que vous voyez Donc ça, c'est pour c'est pour vous. Merci, voilà. merci, merci, et euh, maintenant, nous, euh, ce qui va rester, mhm. c'est quand même suffisamment grande. Hein? Oui. Ça peut faire... Euh... Ah oui, plus. Plus, plus, plus d'un hectare. Voilà. Parce que le président avait prononcé euh, je ne sais pas, en tout cas, plusieurs, on me donnerait <laughs> quelques hectares depuis, depuis notre dernière visite de Dakar. Vous avez le côté là. allez-y jërë jëf kon sit bi jox nañu ko muy ci moomeelu sëñ Touba la ne Serigne Mountakha ni mu yilifee Touba la yilifee fii nu taxaw fi mu ne. loolu euh, gouvernement bu Gabon ñoo ko teg ci loxol sëriñ Touba nga xam ni fii ci Mayomba la am na ko nit ñi xam kon yaakaar naa loolu dégg ngeen ko sëñ Xaadim euh, sëñ Cheikhouna lii lan nga ciy wax. waaw xanaa sant yàlla bu baax am mbégte ci Euh, ñaan gi nga xam ne ma sëñ Mouhamadou Mountakha ñaanoon na ko euh, ne barab bii da ngeen ci jot da ngeen dafa njortu tey ñu ñëw ba njabootuk Mayomba maire bi effet bi jox ñu suuf soo xam ne suuf Serigne Touba la comme Touba murid yëpp man fee am accès man fi ñëw man xam sëñ bi ndax lu ñu gën di mën a ñëw di di di xam sëñ bi ñu am suñu moomeelu bopp goo xam ne fii ci Mayomba Touba Mayomba la Touba Mayombe waaw kay jërëjëf ñu amee kon nag ci bis bi nga xam ni ci la ñuy fàttaliku demuk sëñ bi muy 19 juillet sëñ Modou Moustapha defoon jàmbaar googu nga xamante ne la ko waykat wa wax rek doy na raayu ngëneel wi yaa ko yor yaa teggi tuur daw ba sar naaru góoru fasu par Cheikh Moustapha al Karim rawante ci xarnu bi mbooleem si xaarin wa kibaar yaa tax ñu tàbbi ci saxaar di wàcc Touba ngën gi gaar jaajëf noppal nga xarnu bi sëñ Modou Moustapha defoon loolu njàmbaar tey sëñ Muntaxa ca Sénégal sëñ Muntaxa ngi dajale Baye Fall yëpp nuy sikkar di fàttaliku bis bii sëñ Touba fanaani woon Touba nun nag noo ngi fii Mayumba nun Mayumba lañ koy defee sëñ Abib Mbaye euh, euh, tuuti mot euh, en français. Mhm. nga tontu ñi nga xamante ne ñooy état bu Gabon. oui euh, c'est avec un réel plaisir euh, mais sans surprise mhm. parce que nous savons que Sëñ Touba à chaque fois qu'il touche à une chose la chose lui appartient et il y a une transformation de cette chose en représentation musulmane. Mhm. Donc c'est avec un grand plaisir, un grand honneur mhm. que nous venons ici, après plus de 1000 à Mayombe, dans euh, euh, l'île euh, au, au, sein de laquelle euh, le cheikh faisait ses ablutions. donc ici c'est le pont, euh, le port, ou en tout cas le pont de, débarca, de débarcadère, et euh, vraiment c'est très émouvant. Euh, les conditions sont difficiles, même euh, en 2024. Mmh. Donc j'imagine ce que ça devait être en, 2000, en, en, en 1800, ah oui, oui, oui, 1895. Hein, donc, mais Alhamdulillah, c'est un grand honneur, c'est une grande chance. Merci. jërëjëf iti dama bëgg nag nga ñëw ci lu am solo. Mmh. muy fii nga xam ni dañ fi daan faje ay feebar. mooy li tubaab di wax les grandes endémies mooy feebar yi meloon ni tuberculose feebar yi meloon ni ngaana. Mmh. nga xam ni même Sénégal. amoon na ko voilà. yooyu feebar yooyu. l'ordre souverain de Malte nga xam dañu taxaw taxawaayu ONG ñoom dañu teel a am seen souveraineté ñoo ñëwoon fii di ko faj ba ñu ngi fi jógee en 1965 mais li nga xam ne moo ci yéeme mooy dañu ñëw tabax bâtiment yi mu jàkkaarloo fi nga xam ne fi la sëñ bi daan jàppee. kon ñi nga xam ne ñoo fi indi woon sëñ bi muy tubaab bi amoon nañ yàqin ci njariñu sëñ bi amoon nañ yàqin ci baatin bi nga xam ne moom la sunu borom jagleel sëriñ Touba. dañu gis ni tey ndox mi nga xam ne moo jàkkaarloo woon ak néeg yi kat moo daan faj feebar yi ñu dellu rek di ci sant Cheikhul Khadim dellu di ko yokk sant fi nga indi woon dafa xam ni dañ ko fi indi woon pour mu réer fi nga xam ne dañ ko fi indi woon ndax dañ ne woon dañoo bëgg njàngaleem raaf ca dëkk ba mhm. ñu koy topp ay tànkam ba toll fi mu ne ci téeméeri at ñaar fukk ak juróom-ñeent te day gën a sax day gën a wéy mhm. ñu dellu rek di sant Cheikhul Khadim ci bi mu ñu boolee ci njabootam ndax bokk ci du njàmbaaru nit ki du bëgg-bëggam sunu borom ma ko ciy boole ñu ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal. murid yi dégg ngeen soxna Batour sunu waaja fii la daan jàppoo waaja daan jullee aras ñëw ñëw jullee si njaareem tisbaar fii la daan jàppoo murid yi seen sang bu tedd ba fii la jaaroon fii la wàccoon tubaab yi foog ni jeex na ndekete fii la ñuy taale taal bi bamba sulaa misaal yaay géej gi waa senegal deesu la jàll genn gaal say du sa tooyal bi Cheikh Bamba yaa di mbambulaan ku sóobu day jinaani naan ku mànd day jinaani teeñ say kaasa màndal xarnu bi géeju ikam giñ daan dëtëm moo ko ni secc moom ñoñom monsieur Soudiane nandal ko xam toqen wi doy na xarnu bi luum loo na fóoree woon raam loo na kàngami fi woon daane na mbër yi fi woon meloom amut ci xarnu bi si àndaari xam-xamam monsieur Soudiane natal wu jëm ayam nga sóoru na ñoñom wu jëm amut ci xarnu bi eh murit yi seen sëriñ gañe